Médina Cheikh TV, notre chaîne de lumière. Médina Cheikh TV, notre chaîne de lumière. parce que passage ab na solo mooy li ñuy tuddee effet effet ci wàllu yàlla yàlla xamal la nit ki ci yoon ba muy jaare sàmm sa ruuxu organiser ko ba mu xam ci yoon ba muy jaare muy ci xaalu alquran waaw xaalu alquran dafa am xaalu alquran nag li koy joxe mooy dégg leeru salaatul fatiha loolu mooy joxe xaalu alquran soo déggee ñu daan ñu la daan wax ni mag ñi mën nañu dañuy naafilee kaamil guddi mu dina jaaxal naka la ñuy mën a jàngee guddi kaamil parce que yàlla moo defar seen làmmiñ ci alquran moo tax mën nañu jàngadoo téeméeri saar te daanako ci biir bu gàtt lay nekk seen làmmiñ alquran daf ci nekk du koo xam ni dafay jàng pour ijji wala dafay jàng pour yéex fànn googu yàlla may ñoom moo tax ñoom duñ ko mënoon te ñu koy def. Medina Cheikh TV bërëbu leer bërëbu Cheikh Tidiane Chérif mi nu jox Seydi Mouhamed El Cheikh sang bi di fi jàngale di fi seddale leer yi moom Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh sunu yaakaar tànn Cheikh Tidiane